Balla Gaye da ngay bég signature ba seen signature bu mag bu neex ba waaye boo gisee Balla danga koy fan nga xam ni kii mi ngi ci en forme mi ngi ci forme te loolu faaw mu toog liggéeyaat liggéeyaat normal lu ñu wax si ñaaxarañ loo ñaaxarañ loo duggul ci géew bay bëre de Balla Gaye mooy dugg ci géew bay bëre Aziz Ndiaye daa am yéeneem ñu ngi koy critiquer di ko wax lu ne man su nekkoon man dong Aziz dugg ci biir làmb ci déedéet na bàyyi bàyyi Ndiaye mi nga xam ne toujours moom ak Balla Gaye nam ko daan gunge mu dugg gunge Aziz bu duggee ci biir làmb ji maanaam wax yéen bari bëri te dina am ñoo xam ne lañuy def du baax naa ko wax bu ñu gisee Aziz ci wetu Balla gis Baye ci wetu Balla gis Masata ci wetu Balla ak ñeneen man du ma neex na Aziz Ndiaye di toog hmm? man Selbé dégg déedéet déedéet Aziz Ndiaye na ko jox Baye bi Baye Ndiaye di bi bi bi Balla di daan uh, Yékini mhm. du Baye Ndiaye moo nekkoon ci wetam danga faa gis Aziz waa léegi daa am yéene mi ngi jël ay millions di ko def ci Balla Gaye. Mm-hmm. envoyé naa ko SMS. moom naa ko SMS man bu ma soñoon Aziz Ndiaye kenn du ko gis ci biir stade bi. billahi su man su nekkee su nekkee man déggal na ma te xam naa ne dina ma dina ma déggal. waaw mais ñi nga kay. Aziz moo leen déranger kay parce que. millionnaire la xaw ma milliardaire la day dimbale Balla Gaye tey ma wax naru ma ci woon wax mais daf leen di déranger li muy jële alalam di ko def ci Balla Gaye di wax naan Balla Gaye day daan dafa am ñoo bëri ñoo xam ne dafa leen di déranger. ci staff Balla Gaye ñi ko jege. non non non dañuy bëgg Aziz dañuy bëgg Aziz di ah waaw li tax duñu bëgg Aziz. staff Balla Gaye bëgg nañu Aziz waa kër Aziz Ndiaye ñëpp ñëpp ñëpp bëgg Balla ñeneen ñi bu Aziz Ndiaye ba wax ne dina daan non loolu da leen di jaral lépp dañuy xeex. ah waaw waaw lamb dafa métti de. Aziz moom xol bee rafet. moom moom moom moom lu mu jublu rek loolu la. xol bi moo rafet non non non non déggan gis déggante ak Balla Balla su ma neexee léegi ma woo ko numéro Balla Gaye ngi nii. numéro Balla Gaye ngi fi numéro Balla Gaye ngi fi non non écarté amul man maa écarté sama bopp parce que man euh, su ma gisee mu daanu ma dem yokk ko jege ñu dëpp ko ne man dama ànd ak Bombardier te barkati laa ilaha illallah muhammadu rasulullahi loolu dara amu ci maanaam man man mag laa duma xale tamit man mag laa mag laa duma duma dem di topp nag tamit ci loo xam ne tamit loolu man duma ko man man gor laa loolu kese la mais xuloo maag Balla Gaye xeexu maag Balla Gaye sama doom la. Mhm. mi ngi dund yàlla na gudd fan. Mhm, yàlla na am lopp téeméeri at. Mhm. suma frère suma xarit wallahi woo ko mu ne ko waxal lig Nikolaay na génne sarax su génnewut sarax message ay kii la su génne wut sarax combat bi ñëw ma du am de waaye <laughs> dina dina yéex de hmm? mu ne ma tey jii incha allahu rabbi tey dinaa gisante Luc Nicolaï Bécaye Mbaye ngi dund Luc Nicolaï mi ngi dundu dégg nga ko baal leen ma de Bécaye ngi dund Luc Nicolaï ngi dund nee naa ko laay na génne sarax su bëggee tëgg làmbi Ama Baldé ak Modou wax naa ko li mu war a saraxe laay la wax naa ko Luc Nicolaï Bécaye Mbaye ngi toog ak Luc Nicolaï ma woo Bécaye Mbaye mu ne ma ñu ko laay dina fi ñëw Bécaye Mbaye ngi dund kay xanaa Bécaye Mbaye xanaa koy dund kenn du ko fenaan te mu yore micro mënagumaa gëm tànk que gisuma Modou Lo ak euh, Ama Baldé taxaw ci géew di léewtoo mënaguma ci wax dara vraiment Luc Nicolaï c'est mon frère ndax euh, dafa bëgg Sëñ Tuubaa macha allah. Luc la. Luc ah, moo war a génne sarax moom muy promoteur bi war a tëgg du ci Ama Baldé du ci Modou Lo ñaari mbër yi amuñu problème problème bi Luc Nicolaï moo war a saraxe moo war génne sarax wax naa ko ko xam nga man maa ngi sant yàlla Thione Seck dafa ne maa ngi sant yàlla def na ma géwél doon bu góor waaye man maa ngi sant yàlla ba ma defee doomu séeréer ma nekk sëtu buur doon sëtu wàlliyu yàlla may ma as tuut compal maa ngi sant yàlla billaahi xaw ma kër Luc Nicolaï musuma dem kër Luc Nicolaï musuma ko woone ko may ma ñaar fukk ak keneen ak keneen ak keneen lu ma yàlla may la ma gis ko mu war koo def te wax naa ko ko maa ngi numéro Luc ci sama portable woo naa ko envoyé naa ko message mais dara man nag du ma wëri li kër li Nicolas moom ma tëgg combat mooy am ay milliards moo ci génne ak xaalisam bu bëri. Hmm. ah bëre de moom bëre de moom dina am moom incha allah am nañ ci yaakaar dina bëre bëre bi xëy na dina am mais. Ah, hmm. hmm. su bëggee tëgg bëre bi na génne li ma ko wax wàññiwu ko dara na génne li ma ko wax na ko indi fii ki sama buntu kër gi moom ci boppam. mooy dawal otoom ba ci buntu kër gi wax naa ko ko nee naa ko doo dugg suma biir kër ci sama buntu kër nga yem nga joxe nangam na def loolu mu set ba xam comme du taxaw lu leer laa ko wax xam nga buy tudd turu nit cib sib àddina yëpp di ko dégg la ngay wax nay dëgg woo naa lig ni ko laay Bécaye Mbaye laa njëkk woo Bécaye Mbaye ngi dund wax ko ko ne ko Luc Nicolaï su bëggee combat Ama balde ak Modou Lo taxaw na saraxe nangam mu ne ma dina ñëw mu ñëw Bécaye Mbaye jox ma ko ma saafoonteeg moom bégeeg moom ne ko lii nii lay demee def naa suma devoir en tant que jullit li ci des nag moom mi nga xam ne moo jël ay millions moo koy investir moom moo ci des bu ko defee ñuy doo a wax diggante euh, Ama Balde ak Modou Lo Luc Nicolaï rek moo ci des su paree rek man pare naa déggoo yàlla moo ma tiim damaa dem màkka ñaari yoon gis nga sama jëb bii teg naa ko ci kaaba gi ñaata yoon xoos naa ci kaaba gi dama am chance fekkuma ñu muur kaaba gi ma xoos ci lekk

te su ma paree nii dinaa ko woo ne ko wax naa ci yow man taalibe Sëñ Tuubaa laa gis naa ko gis naa Ama Baldé ak Modou Lo yëpp ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci nekk kii def say say kii de presse gis naa ko waaw. Ah, lu war a xew moom moom moom moom na na li Luc Nicolaï def li mu war a def ba pare su boobaa ñu mën taa wax xam nga Luc Nicolaï affaire am moom bul sonn dafay métti. ngay xool combat Balla Gaye ak Yékini ba la ca Luc Nicolaï daj saa yi ñu bëggee ñaari mbër yi bëggee daje xeex am xuloo am Luc Nicolaï ci boppam ay affaire am day fay xaw a saf tuuti waaw moom warul ji géej di saraxe moom hmm, parce que moom neex na ma trop bëgg naa ko bëgg naa promoteur yëpp mais Luc Nicolaï waaw maanaam di ko sëriñ Bara ñaanal loolu loolu daf ñu marqué ñun waaw question rek ñu yëkkati jotaay bi xam naa ne jotaay bi yàgg na. Euh,